sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin ñu sant yàlla bu baax nag di julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, di ñaanal suñu sëriñ suñu xalif général sëriñ Babacar Sy Mansour yal na yàlla guddal fanam may ko wér may ko kattan di ñaanal njaboot sëriñ Abdoul Aziz Al Amin yëpp di ko teg ci loxo sëriñ Moustapha Sy Al Amin ak mboolem njabootu Seydil Hadji Malick yëpp di leen nuyu suñu papa sëriñ Maodo Sy Dabakh ak mbooleem njabootu suñu maam Abdoul Aziz Sy Dabakh yëpp ñu ngi bu baax a Abdoulaye ñu gis boo dee def lu baax ku xool sa xar kanam day xam ne li ci xol bi mooy ne ci kanam bi xol bi day sedd ba nga koy yëg ne Aziz kontaan na sant yàlla rek njort bi nga am ci ñun ak xalaat bi yàlla na di dëgg rek alhamdulilah li ñuy def mooy di nuyu jullit yëpp di nuyu mbokk yëpp di wax ni bis bi da di bis bu sell ci ñun di bis bu tedd muy bisu sang bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ni suñ koy def dañ koy defee ak xol dañ koy defee ak yéene dañ koy defee ak bëgg jullit yëpp kontaan bëgg itam jullit yëpp kontaan ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu rek mooy sabab bi waaye du leneen li ma koy tëje rek ngeen jégal ma rek xam naa ne activités yi moo tax mooy li ngeen fi gis lépp yàlla buñ ci gis suñu bopp yàlla na lépp di yàlla kese yàlla na ko yàlla nangu ba nga xam ne ñun ak jullit yëpp ñu bokk ko am yoolu ku màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def mooy sa secret ba nga xamee ne waxtu woo wootee rek wax dëgg yàlla nitu làmb yeeg nitu musicien yeeg képp daal yàlla boole na la ak nit ñi lan mooy sa secret sa diggante ak yi Aziz ah bon xam naa ne ndimbalu suñu borom la rek xam nga ñun nag mënuñu dara amuñu duñu leneen lu dul ay taalibe yu xeebu rek yàlla moo def xam naa ñu nitu nit ñi am ay xarit am ay soppe am ay mbokk am ay ñoo xam ni dañu bëgg rek te yàlla tax suñu leen wooyee ñu wuyu si leen xam naa ne looloo tax ñu ngi leen di jéggalu sax ci woote bi ak daje bi waaye nag comme xalifa bi nii la ko bëggee woon ñu ne ku nekk gàmmoo sa kër ñu ñëw fii suñu kër gàmmu loolu rek la woon moo tax ñu doxale ko ni wax dëgg yàlla. duñ wax ba bàyyi mbay ndax gis la ku la woon la loo xew la gis ko ca tey mu dem ci bu gaaw ab baajo tey sa digganteeg mbay. waaw mbay ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu koy ñaanal yàlla fa mu tëdd ca suufu Touba yàlla na ko fa leer fekk yàlla na ko fa yërmande fekk yàlla na ko fa yàlla defal sutura mbay amoon na yéene teew ci bis bi xëy na nii la ko yàlla dogale woon ci moom waaye fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee nit ku baax la woon koo xam ne da daan bégal ñëpp ñun nag yàlla def na daan ñu fréquenté ñu xamoon ko bu baax yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko fa mu tëdd gënal ko fii mu nekkoon incha allah. la gën a marqué ci mbay ndax ku la jege wala ko xam saa bu waaw mbay moom foo ko fekk da daan bégal jaam yi comme ñëpp dégg ngeen ni mu ko doon waxee moom mission moo doon béggal jaam fexe ba ñëpp kontaan kontaan gi mu foofu mu nekk yàlla na ko fa yàlla bégal yàlla na ko fa yàlla kontaan incha allah ca barzaq bi mu nekk macha allah. ni nga amee kër. waaw man waa tax nga bàyyi kër ga Ndakaaru dajale mboolem. man waa Tivaouane laa te xam naa ni comme man waa Tivaouane laa wax dëgg yàlla moo tax ñu ñëw defe ko suñu kër fii Tivaouane Tivaouane mooy suñu dëkk xol moo ñu gënal Ndakaaru moo ñu gënal lu ñu am ba tax na ñu ñëw fii defe ko fi rek macha allah macha allah.